oasis fo laga cosaan a cuka njogoy na fañi go xango Aliou Sène jëmbaaro jeeg we ote jaajëf jibi maa ngi feeg Malick Niang suma waaji dama ko doon wër ci réew mi nag mais stade bi stade laa koy gis moo gën a jafe Macky Sall maa ngi lay ziar waaw Modou Anta naka tey nag nice naka famille ak soxna see xale yi ñëpp ci jàmm waaw noo andee sa caatu ngi waaw ñëw rek entraînement indi ko di xaar di ñaan yàlla mi yor ndam yàlla may ñu ndam te mu oyofal ko si kawam you know ay xale yu neex a nekkal lañ ñu joxab cër lañ ñoom ñëpp billaay amul kii ax kee ñoom ñëpp a yaru buñ jugee si bii ñu ngi dal si combat ja non buñ jugee si boobu ñu ngi ñaanal caatu yof mu am combat di encouragé gin si li mu jugee ñun ñëpp ñoo si jugee ñun ñëpp ñoo daanoo ñu kenn daanoo ñu ñëpp a daanu man billaay quatre jours mënu ma lekka quatre jours ma timee lekka ni damay suur billaay lan nga seq xale yi ba ku ciy bëre ki ci gën a ndaw. ba ki ci gën a mag nga teew esa waaw dem gis la yomb. waaw génne xaalis dem jënd ay dàll yu rafet bu ma ñëwee soo moo di mbali ma laa koy sànni ci aldo bi parce que nit amul lu bisam samay rakk lañ you know avant rakk gi ay fans club lañu sax ñoom ah may bëre di bëre ba ñu dem ba xam nga bàyyi nga ñu récupéré leen ba def leen ay mbër moox Babacar ñu nekk si entraînement yi yaa ngi kon nag lu mu mënuma lu bokk ñoom deex baay rek waaw. combat bi dina gaaw wala dina yéex moog alliance lu ngeen ko wax. waaw ça dépend rek combat bu arbitre souffleegul moom kenn mënagul a xam nu muy def quoi. abal nga ko gauche droite bi wala. waaw yëpp chaque jour ma jox leen ko kay ñoom ñoo ñoom ñoo bëri rek mais li ñu mën si xeex xam naa ne moom man sax mënuma ko waaw. mais est-ce que xam nga ne namu sa waaw léegi rek incha allah léegi rek. normalement foog nga bëri. waaw. <laughs> amateurs yi ñoo ko namu onze combat benn défaite. waaw mais saison bii la yem rek saison bii moom bu bëri amul moom. saison dina am. bu ma tëjee te bëri amul moom ñu noppaluñ ñëpp. rëg-rëg guy gi lu fa xew. ah non combat yooyu moom bu nga ma si wax dara parce que seen i fan sa tax quoi man bàyyi ma ma combat rek wax ni ma war a def. waaj man maa la dugal foofu Tafatine Boy Niang maa la fa dugal. yooyu yëpp dañ neex. man bëggatuma nga am lu yomb mësoo koo am. yooyu yëpp dañoo neex waaw yooyu yi nga wax ni yëpp dañoo neex sax. Tafatine Boy waaw combat bu neex la. am na am Ndiaye joxal Diop. combat bu neex a ngi noonu kenn ki laa la bëgg a jox ki ci daan ngeen bëre. waaw mais ñoom ñaar ñëpp jox nañ ma mi ñu bañ ñoom ñaar ñëpp jox nañ ma leen ñu bañ. lan la ñuy daw si yow. damaa xam man dama jar a daw man ma sew raaj mii di naan ay lingom ba yooyu mii. gisoon nañ diggante Xaadim Ndiaye ak Njamali ak Sakal Moussa Ndoye ak Sa waaw mais xam nan la kii moo gën a sew kooku kooku moo kooku gënoon a taxaw. <laughs> bi expérience bi daa ñëw. première mais ba ngay daan Sa Thiès ak tey bokk. waaw <laughs> waaw dëgg la moom mais wërsëg nag moo ñëwagul quoi wërsëg moom boo dawee mu daagu. you know mais maa ngi ñaanal waa écurie Yoff yëpp jàmm lébu yëpp ñëpp ñëpp jàmm billaahi su ma ak sama fans yëpp ñi tukulóor séeréer joola façon xeet yëpp laa am ay fans billaahi ay nit dañ may invité ba ay Gambie ay Casamance ñoo xam ne bokk ma ñoom dara billaahi dina man gaawal am ab combat ma leen yàlla rek yàlla mooy joxe ko quoi nit li mu war a def mi nga koy def heure bi may jug di entraînement yi gis ma benn mbër géej dinaa dem ba ñëw ba ndékki ba tëdd ma gis kan si géej gi you know wax dëgg yàlla loolu laa mën nag quoi yeah 2011 nga daan mu Moussa Ndoye 2013 nga daan saa Thiès ñoom ñaar ñooy bëre samedi nan nga ko gisee ñoom ñaar ñëpp ànd foo jaar waaw ñoom ñaar ñëpp ñam naa bëre ñoom ay mbër lañ nag duñu ay yambar de ay gëree lañ de you know da ngaa daan yambar waaw ay gëree lañ de billaahi waaw leen ñaanal jàmm si seen bis boobu rek yàlla defal leen jàmm lafal leen cat ba benn blessure bañ leen dal ba combat bi ñu bëree ko si jàmm ak salaam le meilleur gagne. lan moo ci gën a naqaree bëreel. waaw ñoom ñaar ñëpp a neex a bëreel nag si man boog ñu ma bëree ñoom ñoom ñoom ñaar ñëpp mënu ma jox kii favori bàyyi kii ñoom ñaar ñëpp dama daan yu gaaw laa leen daan quoi moo tax bu doon kii laa gën a yéex a daan wala kii moo gën a gaaw ok ñoom ñaar ñëpp ñoo tolloo ay secondes yuñ defa man buñ xeexee kan ma leen waxal du ma seen entraîneur moo tax te du ma far fenn moo yow dama bëgg a terrain neutre rek laa bëgg a taxaw. nga xam lamb mais nanguwoo analyser ma. billaahi waaw xam naa sax mais xam nga rek léeg-léeg boo analyser rek du ñëpp ñoo koy gisee noonu quoi dañ naan fii kii fii la fee yow. Eh, man lay jaajëfal waaw kontaan naa Modou Anta maa ngi booy écrit Yoff bu baax gin maa ngay encouragé bu baax ay Modja ñoom ñëpp waaw capitaine dina njuma otom dafa paan njuma Trois espoirs. La gacho sana chuka njogo inafanyiko hango.